commencé ci président wu Ansar Diin ak mboolem membre yi surtout suñ gan ñu tedd ak nag comme ni tubaab yi wax góor ñi ak jigéen ñi wala jigéen ñi ak góor ñi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu hmm. ma mel na ni kon minutes lañu bëgg a nekk <clears throat> euh, ci peggu Cheikh Ibrahima Niass di waxtaan ci relation yi xam tam xaj fi euh, yu mu am ci biir réew ma ak ci biti muy waxtaan woo xam ne di ngeen seetlu incha ne du lu may dërs asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam buñ noppi woon gàmmu du am ndax di kon duñ xam nu mu dundee tax na ba itam maas gu nekk lu leen itteel su demee ba bàyyi fi dara war nañ léeg-léeg ñu koy nafar kenn mënul jël yépp waaye nag buñ ko jàppee ay leçon ak i dërsu daanaka sax xal yi gën a ndaw ñoom lañ gën a visé ndax jamono day dem ba yàgg nettali kaasu ndox sax bu kilifa joxoon nit mu naan dafay bokk ci xam tey am jëriñ ndax da nga mos a gis ku kàccoor ku ne mësta naan na liit ab kaas te yooyu nit ku baax boo ko weddilee lu baax yow sa yu baax day wàññeeku eh, maa ngi leen di gërëm bu baax nag ci confiance bi nga xam ne mu ngi renouveler aaman baada aamin at gannaaw at di ñaan yàlla yàlla nañu defal tawfiq ci lii ak lumoo lumu ba nga xam ne suñ daje mu gudd mu gàtt yàlla daf koy gërëm boole ko ci yama daan nettali jàngee ko ci moom Mawlaana Cheikh Ibrahim yàlla dana xool jaamam ci ci benn position gërëm ko te dootu ko mere mukk yàlla ci géew bi bokk euh, ñu ne nañu waxtaane Cheikh Ramies ak relation yi ca réew ci biti ak yaatu waaye surtout ak am njëriñ euh, ak a baax ak a jaar ci yoon euh, mais nag laaj bi ngay njëkk a laaj mais pourquoi ñu war a waxtaanee waxtaanu lëmm conférence lëmm war koo wax ci Cheikh Ibrahim Niass ak ay relation lu mane ma premièrement mun nga wax ne xadiisul xabibi xabibun xadiisul xabibi xabibun waxtaane soppe waxtaanu ñépp sopp lay doon toog dégg ñuy waxtaane sa soppe ki koy waxtaane di soppeem ñi koy déglu di soppeem taalube ku dul taalube xadiisul xabiibi xabiibun jàppale ko sax mën na xadiisul xabiibi xabiibun hmm? ñaareel ba bu ñëwee ci buntam njëriñ te nit dafa soxla yàlla je toujours lépp looy def nag xam ne mën nga caa am dara lu jógee ci yàlla kooku baax na dañu wax ne xadiisu saalixiina mufiidun ku yàlla boole ci saalixiina yi te amul benn werante ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass min saalixiin wal nag wax ji ndax déggoon naa ko ci firi alquran mu ne yàlla buy tagg di melal bu eggee ci saalihiina rek wax jooju moom daanu na mi ngi mel ni saalihiina daal moom xanaa moom saalihiina mooy saalihiina bañ nañ ko sax baat bi boo koy firi ci tubaab aptitude la la gën a jege ku apt léegi nag euh, waaje waxoon na ne ahid xadiisa saalihiina wa zikrahum fa bi zikrihim tatanazalu rahmatu waxtaanal ma ci ñu baax ñi te nga waxaat ko ndax fu ñu leen di waxee rek yërmande yàlla dafay wàcc inda dikri saalixiina tatanazalu rahamaatu fu ñu leen di tuddee rek yërmaande dafay wàcc yërmaande dafa am yu koy provoqué boobu ci la nekk ci jàkka wala barabu jaamu yàlla di fa wax alquran di ko jéem a dégg day wàccee alqo day wàccee yërmande day sax sax malaaka yi yàlla di ñu tiitaroo nag fa moom e, liñ jublu nag ñun kii feuille de bu mu amee la e, liñ jublu nag ñun suñu xastu dëgg dëgg bi ñu xamee loolu mooy liñ xam ñun ñëpp moo di am na meññet mu ñuy séentu ci bu ñu waxtaanee Mawlaay Cheikh Ibrahima Niass soo ko fi ne woon yukk dem ba ca xarnu saalisi hijri yi waxtaanee junay di itam dafay am njëriñ waaye nag ndeem ñoo ngi jàng gaañi booba ba léegi xanaa kay war nañoo wax nag ñu doon xëy ñoom di gont ak ñoom parce que lii moo gën a wóor sax bu dul dara sax yàlla ci mbaaxam gi may na ma lu mu néew ne xaw ma ñaata at la fukk ñaat fukk xaw la yoo xam ne añ ak reer ak ndékki maag bàyyi koy bokk lu may bu tukkee wala ma tukki ak loo xam ne ku ma ko waxul doo ko xam bët bu set dañ may oosi mus nga dégg loolu man du ma ñëw ci bunt bi di xaar léegi rek bàyyi na ñëw bis bu set loolu ci moom la du ci man moo tax nag bu may wax damay wax lu ma xam dama dajeeg benn waay ci mbedd ndakaaru yi nit ku yiw mu ne ma maa fonk ma ne ko lu ma la defal ak loo xam ci man mu ne ma dama déglu rajo dégg nga naan a ah, bëgg bàññees nag lu ma tax wax lu ma xamul ma ne ko waa ah, damay bañ mu jéppi ma <laughs> su ma ne bàyya ne waatal bon léegi nag waxtaanu jàng rek la xam nga meññeen bi mu ci jëkk mazidun min furasil isdiyaad encore amaat chance ci yokku yokku lan benn yokku cofeel yokku cofeel bëgg ci yàlla kenn deful kenn amul lu ko ëpp te buñ la waxee ci nit lu baax lu ñuy teg baaraam yow danga koy doolee sob te loolu ci yi ñuy ut la bokk benn ñaareel ba da ngay dolli itibaan mën koo topp ca yu baax yooyee nga dégg ne ca la ko yàlla mayoon mu nekk ca su naa koo dégg déggal bind na lettre bu am taarix ci taarixu xam-xam bu mu yónnee woon Mauritanie ci ab roq wax na ca ne am na waaju waxoon ba muy laata wax waxi waaja mu ne ta wax ji entre guillemets te euh, entre parenthèse te ji waroon nañ ko bind sax ci encre yoo xam ne urus la ma foog ne lu mu ne ittabi wala tattabi ittabi wala tabtadi ittabi wala tabtadi wattadi wala tartafi mu ne ñaari ndigal yooyu ak ñaari tere yooyu foor na ba waroon nañ ko bind ak encre boo xam ne urus ca nekk waaw ittabi toppal lu baax laa ak ñu baax ña wala tattabi' te bul fent si fi bopp mu ne wattadi' te nga am humilité suufeel sa bopp loo baax baax wala tartafi' te bul sunkaliku waaye man topp bi tey moom laa ci wax topp xanaa doo dégg ñuy wax nit da ko yàlla may yëpp fam jaar te doo xeme nag topp lu mel noonu danga ci jógi dañuy daf ñu dool itam firaaran firaaran min al muhdasaati in waqaat soo xamee kilifa gu toll ni Cheikh Ibrahim ci jamono ak surtout pour ñun xam gi dafa lay musal ci nga mën a daw lu sosu gannaawam te bokku ca ndeem am na in laa wax avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. mën na am dara xewut waaye nag bu xewoon danga nga ko xàmmee ndax buñ ne lépp weex dara ne pël ñuul au moins mën nga wax ne ñuul du weex fekk bañ la koy firilee nag ñu xam peut-être xëy na am na weex bi firi ñuul je <laughs> de daf lay may nga mun a daw yu xew te bokk ca yonent daf ko daan moytandikuloo du lu xew rek. nga ne bokk ci déedéet mbir yi day yokk di dem mais nag am na yu xew quelquefois te du ca bokk mhm. wala nga gën a fonk taraqi su amee te bëri na lu muy am soo xamee rek ci dund ki nga fonk maanaam ku yokk rek danga ko xam koo gis mu yokk rek di ko xam sheekhaani noon ala ayyuha al-ixwaanu siiru wala yakun ladaykum sududun limriin gayri saairi sheekhaani mën naa la fa madhabu ahli lxaqi ma zaala hakada taqaddaw alayhi kaabiran baada kaabir ñunu neen la doon waxal taalibe yi ci Mauritanie ak mag mooy leen siiroo continuer leen di dox bu leen taxaw te bu leen bu ngeen gisee ku taxaw demut bu leen tere wéy mu ne kat nii la gaañe meloon mag jële ndaw jële ko ci mag kooka jële ko ci ka ko mag nii la waaja tagg mbokk ma ca gàdd ga ne ko bi abi iqtada addiyun fi lkaram fa man yushaabih abahu fa ma zalam dan waaye noon Adi ibn Hatim ne eh ci baayam la roy te ku niru sa baay ju baax kenn waru yedd baay dafa niru baayam foofu laa dugg naa nag mos nga gis doom ju baay ju waaw kuy baay kuy baayam la ni kon maanaam quatre-vingt-dix minutes la bëgg a nekk <clears throat> euh, ci peggu Cheikh Ibrahima Niass di waxtaan ci relation yi xam tam xaj fi euh, yu mu am ci biir réew ma ak ci biti muy waxtaan woo xam ne dingeen ngeen seetlu ne du lu may dërs asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam buñ noppi woon gàmmu du am ndax di kon duñ xam nu mu dundee tax na ba itam maas gu nekk lu leen itteel su demee ba bàyyi fi dara war nañ léeg-léeg ñu koy nafar kenn mënul jël yépp waaye nag buñ ko jàppee ay leçon ak i dërsu daa nekk sax xal yi gën a ndaw ñoom lañ gën a visé ndax jamono day dem ba yàgg nettali kaasu ndox sax bu kilifa joxoon nit mu naan dafay bokk ci taarixam tey am njëriñ ndax da nga mës a gis ku kàccoor ku ne mësta naan na nit ab kaas te yooyu nit ku baax boo ko weddilee lu baax yow sa yu baax day wàññeeku Euh, maa leen di gërëm bu baax nag ci confiance bi nga xam ne mu ngi renouveler aaman baada aamin at gannaaw at di ñaan yàlla yàlla nañu defal tawfiq ci lii ak lumoo lumu ba nga xam ne suñ daje mu gudd mu gàtt yàlla daf koy gërëm boole ko ci yama daan nettali jànge ko ci moom Mawlaana Cheikh Ibrahim ni yàlla dana xool jaamam ci ci benn position gërëm ko te dootu ko mere mukk yàlla ci géew bi bokk euh, ñu ne nañu waxtaanee Cheikh Ibrahim ak relation am yi ci réew maag ci biti ak yaatu waaye surtout ak a am njëriñ Eh, ak a baax ak a jaar ci yoon eh, mais nag laaj bi ngay njëkk a laaj mais pourquoi ñu war a waxtaanee waxtaanu lëmm conférence lëmm war koo wax ci Cheikh Ibrahima ak ay relation lu tax ma premièrement mun nga wax ne xadiisul xabiibi xabiibun xadiisul xabiibi xabiibun waxtaane soppe waxtaanu ñépp sopp lay doon toog dégg ñuy waxtaane sa soppe ki koy waxtaane di soppeem ñi koy déglu di soppeem taalube ku dul taalube xadiisul xabiib yi xabiibun yàppaale ko sax mën na xadiisul xabiib yi hmm? ñaareel ba bu ñëwee ci guntam njëriñ te nit dafa soxla yàlla je toujours lépp looy def nag xam ne mën nga caa am dara lu jógee ci yàlla kooku baax na dañu wax ne xadiisu saalixiina mufiidun ku yàlla boole ci saalixiina yi te amul benn werante ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass minu saalixiin wul xeeb nag wax ji ndax déggoon naa ko ci firi alquran mu ne yàlla buy tagg di melal bu eggee ci saalixiina rek wax jooju moom daanu na mi ngi mel ni saalixiina daal moom xanaa moom saalixiina mooy saalixiina bañ nañ ko sax ba baat bi boo koy firi ci tubaab aptitude la la gën a jege léegi nag euh, waaja waxoon na ne aid xadiisa saalixiina wa zikrahum fa bi zikrihim tatanazalu rahmatu waxtaanal ma ci ñu baax ñi te nga waxaat ko ndax fu ñu leen di waxee rek yërmande yàlla dafay wàcc inda dikri saalixiina tatanazalu rahmatu fu ñu leen di tuddee rek yërmaane daf fay wàcc yërmaane dafa am yu koy provoqué boobu ci la nekk ci jàkka wala barabu jaamu yàlla di fa wax alxuraan di ko jéem a dégg day wàccee alxu day wàcce yërmaande day sax sax malaaka yi wàlli yàlla di ñu tiitaroo nag fa moom eh, liñ jublu nag ñun kii feuille bu mu amee la Euh, liñ jublu nag ñun suñu xastu dëgg dëgg bi ñu xamee loolu mooy liñ xam ñun ñëpp moo di am na meññet mu ñuy séentu ci bu ñu waxtaanee Mawlaay Cheikh Ibrahima Niass soo ko fi ne woon yukk dem ba ca xarnu saalisi hijri yi waxtaanee junay di itam dafay am njëriñ waaye nag ndeem ñoo ngi jàng gaañi booba ba léegi xanaa kay war nañoo wax nag ñu ñu doon xëy ñoom di gont ak ñoom parce que lii moo gën a wóor sax bu dul dara sax yàlla ci mbaaxam gi may na ma lu mu néew ne xaw ma ñaata at la fukk ñaar fukk xaw ma la yoo xam ne añ ak reer ak ndékki mag bàyyi koy bokk lu mooy bu tukkee wala ma tukki ak loo xam ne ku ma ko waxul doo ko xam bët bu set dañ may oosi mus nga dégg loolu man du ma ñëw ci bunt bi di xaar déedéet bàyyi na nga ñëw bis bu set loolu ci moom la du ci man moo tax nag bu may wax damay wax lu ma xam dama dajeeg benn waay ci mbedd ndakaaru yi nit ku yiw mu ne ma maa la fonk ma ne ko lu ma la defal ak loo xam ci man mu ne ma dama déglu rajo dégg nga naan a ah, bëgg bàññees nag lu ma tax wax lu ma xamul ma ne ko waa ah, damay bañ jéppi ma <laughs> su ma ne bàyyi ne waatal bon léegi nag waxtaanu jàng rek la xam nga meññeet bi bu ci jëkk mazidun min forosilis isdiyaad encore amaat chance ci yokk yokku lan benn yokk cofeel yokk cofeel bëgg ci yàlla kenn deful kenn amul lu ko ëpp te buñ la waxee ci nit lu baax lu ñuy teg baaraam yow danga koy doolee sob te loolu ci yi ñuy ut la bokk benn ñaareel ba dangay ngay dolli itibaan mën koo topp ca yu baax yooyee nga dégg ne ca la ko yàlla mayoon mu nekk ca su naa koo dégg déggal bind na lettre bu am taarix ci taarixu xam-xam bu mu yónnee woon Mauritanie ci ab roq wax na ci ne am na waa ju waxoon ba muy laatu wax waxi waaja mu ne ta wax ji entre guillemets euh, entre parenthèse te wax ji waroon nañ ko bind sax ci encre joo xam ne urus la ma foog lu ne lay wax mu ne ittabi wala tattabi ittabi wala tabtadi ittabi wala tabtadi mu ne ñaari ndigal yooyu ak ñaari tere yooyu foor na ba waroon nañ ko bind encrier boo xam ne urus ca nekk waaw ittabi toppal lu baax laa ak ñu baax ña wala tattabi te bul fent si fi bopp mu ne wattadi te nga am humilité suufeel sa bopp loo baax baax wala tartafix te bul sunkaliku waaye man topp bi tey moom laa ci wax topp xanaa doo dégg ñuy wax nit da ko yàlla may yépp fam jaar te doo xeme ba topp lu mel noonu da ci ciy jóg dañuy daf ñu dool itam firaaran firaaran min al muhdasaati in waqaat soo xamee kilifa gu toll ni Cheikh yi ci jamono ak surtout pour ñun xam gi dafa lay musal ci nga mën a daw lu sosu gannaawam te bokku ca ndeem am na in laa wax avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. mën na am dara xewut waaye nag bu xewoon da nga ko xàmmee ndax buñ ne lépp weex dara ne tëll ñuul au moins mën nga wax ne ñuul du weex fekk bañ la koy firilee nag ñu xam peut-être xëy na am na weex bi firi ñuul je ne sais hmm. dégg de daf lay may nga mun a daw yu xew te bokk ca yonent daf ko daan moytandikuloo du lu xew rek. nga ne bokk ci déedéet mbir yi day yokk di dem mais nag am na yu xew quelquefois te du ca bokk mhm. wala nga gën a fonk taraqi su amee te bëri na lu muy am soo xamee rek ci dund ki nga fonk maanaam kuy yokk rek danga ko xam koo gis mu yokk rek da nga ko xam sheekhaan noona ala ayyuhal ixwaanu siiru wala yakun ladaykum sududun limriin gayri saairi sheekhaan mën naa ba fa madhabu ahli lxaqi ma zaala hakada taqaddaw alayhi kaabiran baada kaabir ñunu neen la doon waxal taalibe yi ci Mauritanie ak mag mooy leen siiru continuer leen di dox bu leen taxaw te bu leen bu ngeen gisee ku taxaw demut bu leen teree wéy mu ne kat nii la gaañe meloon mag ndaw jële ko ci mag kooka jële ko ci ka ko mag nii la waaja tagg mbokk ma ca gàdd ga ne ko bi abi iqtada addiyun fi lkaram fa man yushaabih abahu fa ma zalam dana waaye noon na waaja Adi ibn Hatim ne eh ci baayam la roy te ku niru sa baay ju baax kenn waru laa yedd bàyyi dafa niru baayam foofu laa dugg naa nag mos nga gis doom ju baax ju amul ju baax waaw kuy baay kuy baayam borom borom relation yooyu kuy baayam baayam est-ce que moom nekk ci village nekk ci dix-huitième dix-neuvième siècle est-ce que amoon na ay relation fu bàyyi jàngee kuy am ay relation laa ngoog ma ne membre bi la cheikhul jamaa moom sax dafa mës ta ñàkk fab relation parce que dundam bi tënk lañ ko ci ñaari yëf waxtu wu nekk xam-xamle ak sonn luy protéger nit ñi bu jàmm amee ak bu guerre amee dafa xeex ci guerre contre ceddo yi doon bëgg a nacc jullit ñi ba mujj nañ di ko nettalil moom moom alaaj Abdoulaye Niass ne dafa amoon tul ak sendeel tul mooy loo xam ne su paaka ñëwee du dugg su bal ñëwee du dugg wala day moy wala bu ñëwee du dugg ñu ne dafa am nag moom tul ak sendeel xam nga tul ak sendeel sendeel xam nga dafa bëri ay pax parce que ngooñ rek la yëkkati te ngooñ du gaaw a ah, kon nag pax yu bëri yooyu mi ngi mel ni yaramam mi pax la su bal bi ñëwee day day jaar ci pax mi wéy ma ne xaw ma tuloog sa del mais jàmbaarangoo dinaa ci ñëw bu fi xaje baay jooju dundam bi yépp yépp yépp yépp tafarraga li xidmati al ilmi wa diin wa naasi fi silmi wal xarbi li tax ma ne relation gi comme mi ngi commencé ci am relation ak yàlla ak jokkale nit yéeg yàlla imagineel góor gu baax googu ci jamono jafe jooju toog na di firil ndongo yi alxuraan ak ñi koy fekkee ñëpp téeméeri yoon ak ñetti yoon ci dundam bi baqara ba wannaasi baat bi lu muy firi luy asbaabu nuzul luy fasul xitaab luy xikmatu luy xissa bi lu ca wér ca téere bañ nit ñee amee ak lu ca wérul bañ teg ko fa fukk téeméeri yoon ak ñett sew dundo dundoo lu mu juróom ñetti fukki at xanaa xamee nañ ci ne am na at yum firi ñaari yoon mbaa ñetti yoon benn prix moomu nag yàqalu ko jàngale fiq yàqalu ko jàngal nit ñi mbay parce que lu gën a lew loo lekk mooy mbay wa anfiqu min tayibaati ma razaqnaakum terewul ma ngay fonde famille bu mag boo xam ne rëccuwuñ ko góor yàlla yu bari kaar génne nañ ci moom te mu ne li mu suula ëpp moo ko am xam-xam li ñu jàngee ci yi ak li yàllay may ku ragal yàlla wattaqullaha wa yuallimukumullahu la yàlla wax nga ragal gi wér rek yàlla dafa lay xamal li nga jàng ak nag lim lay xamal mooy la am njëriñ mooy lay des moo lu barke la barke di ngeen gis léegi ne léeg-léeg léeg-léeg bàyyi lim nëbbu nëbbu léeg-léeg dara ni tëll quoi nañ tëb dem ca kanam dafa toog nii di naan attaaya gannaaw añ kii xiima ngi nii ci bopp bopp lal bi loolu la woon de xam nga nag lu tax euh, te euh, satala gaa ngi ci kaw euh, furno bi ci perron bi ñi ko fekkee fii ñëpp ay dañuy naan moom mi ci lalam boobu surur marfuatu daan waay lu tëll ak ay bokkam ma ngay jooy magam jëmb ndeke waa ji dafa bugg a tuur ndox munu ko waaw rétention urinaire feebar xam nga lu bàyyi njëkk wax wan leen yoon yéen yóbbu leen ko dispensaire xam nga hôpital Kaolack ñun ñëpp lañ koy wax nekkuñ ci tubaab tubaab lu boobu yéen yóbbu ku feebar da nga ko yóbbu hôpital waaye nag comme ñëw nañ du tas yaakaar xam ngeen nu mu def xii xiim nañ ba war a jël mu jël ñaari kaas yu ndaw kaas yi atta yooyu boole ci benn bu mag ne jox leen ko ñu jox ko waa ji mu naan ko saw fi mu toog laa ilaha illa allah waa dafa alhamdulilahi ma ne ko boobu sant foor na <laughs> te loolu góob ne sax sobe la <laughs> fi mu toog moo tax euh, bon nañ dem xam nga maam El Hadj mooy dama bëgg a wax ne baay ju mag yàgg naa am doom ju mag mm-hmm. doom yu mag sax mm-hmm. Eh, moom nag dafa am succès moom alaaji yàlla may ko najaax ci mu yar ay taalibe yu bari y compris ay doomam ndax ay taalibe lañ yàlla nag may yam maye tey ki ñuy waxtaanee Baye Niass dafa am li ma tuddee nu buuxan mu bëkkiran nu mu bëkkiran ak imaamatan mu moo luy loolu maanaam dafa teel dafa teel a fëll ci fi ñuy xamee fi ñuy jàppee xam-xam ak ni ñuy jëflante dañ ko gaaw a xàmme ba bàyyi Cheikhou Faye ca Banjul ki bàyyi dàkkantele woon zinatul akabiri mag ñi kii mooy seen taar fa ñoom du taaru kii taaru ci biir dafa daa ñëw ci maam alaaj di taalibeem di ñëw ba bés mu gis bàyyi ñëw ci maam alaaj ne ko su ma la xale bii mooy nekk suma sëriñ waaw nazarun aalin la ko waaj waxe woon nazarun aalin dafa xool fu sori te mujj na nekk sëriñam nekk sëriñu ay doomam teel googu mu teel a ci xam-xam ak jikko dama bëgg gàttal wax ci mooy maam alaajee ko yar waaye nag géew yi dafa bëri woon ñu fa dëkk ñu baax ak ñu baax ñu fay ñëw yoo xam ne duñ taalubeem duñ mbokkam sax fu baax dafay xëcc yu baax ak ñu baax loolu ñu bàyyi ko xel eh, mu teel am nag imaama njiit ci diine ku ñëw sonere jànganoo risaala dèjà yow imaamam nga mu nekk ñet diw yiiteel loolu yëpp rafet njort la ay matukum sufaawukum léegi bàyyi teel a teel a nekk imaam ndax yaa ngi wax léegi kañ la njëkk a firi alxuraan da waaru yàlla may ko nag pour mu am relation yi ngeen di laaj mu am yii may wax si man sax fentuma ko benn professeur bu mag ci collège de France moo daan wax ne jamono jooju ay 1960 nangam yooyu ñu nekkoon man xam naa ko dañu àndoon jógee lu keer mu gën maa dégg arab tubaab boobu professeur booba Jacques Berc waaw waaw Jacques Berc laa ilaha illallah collège de France alors euh, dafa daal wax ne li mu tuddee croisée dialectique jamono jooya pour nga def bi nga am authenticité asala ak cosaanu war nga am efficacité maanaam faaliya man dara jooma jur baax na waaye nag maam man lii itam efficacité mu ne war nga am war nga am li mu tuddoon mondialité wala ouverture foo dem man faa nekk rendez-vous am ak indi nga man fa dara mooy waaye lu mu yàgg-yàgg nag bul fàttee koñeb ñetteel bi mooy sa spécificité en jokkool ak ñëpp bul seey nag waaw da nga naan man olof jullit tijaan man olof jullit murit da la nga dox waaw loolu nag yàlla may ko mu am asaala am faaliya am ubbeeku te xañu ko nag inniyatoom ji mooy xusuusiyaatam yi moo wax mu ne booy jàng rek mbiram xat xassan yi daf cee bëri xat xassan yi bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi xusuusiya mooy loola nga xam ne yow lañ ko jagleel aywa cheikhaani encore une fois don na ko tagg di ko bàkk ba yëf boo la ko xaaral sax laysa ma qad yuqaalu fiihi bi mugnin walladi laa yuqaalu laysa yuqaalu mu ne kii sax moom luñ ci wax itam du doy te luñ dul wax nit wax rek la man <laughs> léegi kon relation bosam li tax yëpp mën a am mooy relation bu njëkk relation mag yàlla la imaanan waxtisaaban islaaman wa imaanan wa ihsaanan baayam gërëm ko yàkkamtiwul dox ndànk mais nag bu ko yàlla poussé doo xamante vitesse ba lan la yi may wax yépp ay ay affaire la yu ma xam euh, li tax nag relation mun a yomb olof nee na bala nga a naam ne fi nga naam ne ba mu paree bañ paree ci moom yàlla defal ko moo tax bunt yi ubbeeku yonent yàlla Muhammad ne na bu yàlla soppee kenn ci ay jaamam dañu koy yéene ci malawul yàlla ni Jibril yéeneel ma ne yàlla sopp na jaam sàngam yéene ko mu ne malaw laalaa sopp ko ñu ñu jox ko nag xabul ci kaw suuf am na xabal yoo xam ne du dafa sangoo saafara du dafa kii yooyu fu sori la jógee waaw mais bul tax nga bàyyi saafara bul déglu ñu lay wax nga li ma la wax ubbil ma jàngal ne ñaan ngoo gis jàng cee cosaan mu ne waaye luñ mun a jàng rek doom mun nañ ko bind téere mun nañ ko def saafara bul déglu ku lay wax leneen ma ko ah mu ma gis nga téere yu baax yi ñaan yu baax yi ñuy bindal ni ñi ayatul kursi waaja ne tamimatu baaxut ma ne ko mais ayatul kursi du tamimatu ayatul kursi yàlla ne mooy azamu ayatin fil quran al karim nga ma tamimatu yo tamimatu mooy tamimatu baatab arab lu muy firi mais ayatul kursi moom ayatul kursi la yàlla yonente nee na mooy azamu ayatin fil quran al day dàq jinne day dàq rab day ba kéemtaan la waaw alors moom mu ne ma nag soo ko bindalee waa ji ak ñaan yi leen noonu mu ne ma xay boog shahadatu léeg-léeg ñu niroo dégg bu baax bàyyi wax xay bu ak shahadatu léeg-léeg ñu niroo mu ne fi mu ne su nguur gi ootee su buur bi empereur bi roi bi président bi su ootee officiellement ñëpp ñëw mu ne xam nga borom médaille yi ak ñi amee fonction yi ak ñi amee kii yu ndaw yooyu ñi amee protocole ak sécurité dañ leen di xàmme di leen toppatoo seen place préparé nañ ko bu ñuy laata ñëw mu ne dafa am itam ci ma ci ci xëy bu boo takkee yooyu mu ne am na mu aqibaatun min bayni yadi yow min xalfi yaxfadunahu min amrillaahi yow tam ñoo lay toppatoo loolu ci mën <laughs> mooy waay waay nañ ñëwaat li tax nag mu mën a am relation yi c'est parce que dafa ne ba pare ndax bu amoon relation ak ñu am xam-xam ñu wax nga naan lu ñuy wax nga am relation ak nit ñu tabe yow nga doon koo xam ne sa sa loxo dañ koo collé ci sa poche wala la ma benn waay waxoon benn soudanais ñu nekk xen indi benn waay daal nekk fa bu ñu waxee rek moom daal du dépensé ñun ñëpp ñooy fay rek mu ne ma diw mi foogoon ne poosam bi jiit ci nekk mu ragal mu màtt ko <laughs> ma ne ko jeexal nga ko rek oui ndi kon dana baax waaw bu ñu doon dem fu ñuy defaree nga dem fa yow fekk yàq nga xam dana baax waa kii nag modèle moo doon tukki déglul nag moo doon dem Baye Niass itam nekk personalité charismatique te te maanaam du moom moo koy moo koy provoqué hmm. shaxsiyatun jazzabatun bil xaqi bil xaqi parce que bu dul xaqu mun naa leen netti loo xam ne ci taarixu Baay mais jàng la benn buur ci abbasine yi njabar yu oof yooyu benn jiibéer bu ñaaw bu amul benn kii rek benn waay kii xamul sax rek jox ko kii ga rek mel daf caa jàpp buur bi moom mosu fee jóg bés mu gis ko ma kii kan la ki uñu leen ko ñu indi ko dugal ci pale bi rek mu nekk ci ceeb goo xam ne kële dem di sangu fenn rek téere ba réer muy traversé buur bee kii kan la ki lu fi def yooyu mooy affaire yu wérul yi <laughs> affaire yu wérul yi baaxul léegi personnalité boo xam ne yàlla xëcc xol yi ci moom waaye bil xaqi bil xaqi 1925 la Baye Niass njëkk lal géewu firi pour mbooloo kon mu am ñaar fukki at ak nangam te dañ ko ko sant te xam nañ ne ko santaane woon ak ñenn ci ñi ci bokkoon mu firi ko ba mu jeex amee jukkib alxuraan pas téere tafsir jukki jukki jukki waaw kaamir ni xattu ne moom la yore di wax ya ma doon wax yépp ak sax yeñ miinutoon bane wa sa bane wa naas di dem nag di dem nag ba ñun firi nañu waaw kon nag ku teel li ma ne woon teel naa nekk imaam mooy loolu moo koy wane firi alxuraan xam nga ci la mag ñi defaree Sénégal ba pexe yu bëri yëpp ñëwoon ak bérëx bérëx yi nit ñi dese tawxiid ak jaamu yàlla ku mii ne déglu alxuraan rek kenn du la mun a arnaqueeti ci mbiram pas-pas te loolu koosi la woon bon léegi fi mu njëkk am ay relation yuñ mun a joxoñ mooy fadaawu madina ci madina waaw fadaawu mooy espace espace u madina parce que madina la ko tuddee mais mu jële nekk ab cité itam waa euh, kii sawaaf ne madina sul madina falaa fekk bàyyi man ci laa ko jëlee dëkk la boo xam ne bañ ko sancee mun nga ko tuddee centre la pour xam-xam ak jàngale ba léegi nag wax dëgg yàlla mais surtout booba bàyyi di forme formateurs yi bañ mun a former ñu ànd ñoom ñëpp di forme jàngale jàngale jàngale jàngale jàngale te terewul jiite jiite jiite jiite jumaa amagul mais zaawiya fi nekk mais ku wax zaawiya wax nga wax nga wasifa wax nga xadaratu jumaa ma ngay jàngale ma ngay recevoir ma ngay won nit ñi di leen wax di leen jox loo xam ne dafay tondi te xam nga nga mooy tondi ku dem ñëw nit a ngi am fulla ba nga xam ne boo fi demee fu amul njëriñ dangay ngay dem dootoo ñëw ku dem ñëw moom sax day may nit ne ko kañ nga fiy dellusi si ñu def koy tàggu mu ne ko foo jëm dan bés sax ma ma ma sob sob ma ne ko bàyyi ah xanaa day ñibbi alors ah, googu nag pour jàng ak jàngale moom day jàng mais day jàngale day jàngale waaye day jàng ak woote jëme ci yàlla bil maanal waasi woote jëm incha allah mais ci maanaam at laaj yooyu ñuy wax léppam daf daan fàttali nit yàlla di ko ci xemem loo bu waxut jikkoom a ngi wax xam nga jikkoom moo gën a fasaa waaye nag bu fekkee ne wax ji ak jëf ji dañoo ànd ba pare euh, mbir mi nga mën a wàlle xam nga mën a wàlle ci wasaayilu tarbiya la bokk bàyyi ba muy firi duma ko wax tey mais ba muy firi aussi boole na ci wàlle man jaala sa jaana sa yàgg la togg ak benn waay rek bu yàggee foog nga am loo ndiru ci moom man sax ñëw naa nuyu baay mel ni ko naan moo ne dara may métti xam lu ma wax mbaadu dama leen a wàll sama sedd bi yee ma di ko bàyyi sedd dana wàlle mu eh, ne doom defe naa xiif rek dul wàlle <laughs> man dama miir miir tuuti waxuma ko ci kaw ma ne ah xanaa ku ñu wàllu sedd dañ la wàllu leneen itam ah day ba tuddee woon nañu ko eh, zaawiyatu ahli dikri signal yoo ko wax te zaawiya ñi dul fàtte yàlla jumaa ja ca tegu ñu bëri ci yéen xamuñ ne jumaa ji bàyyi njëkk dox ci benn at la pare boo mhm. jógee Màkka 37 rëdd jumaa ji tabax mu pare jumaa ji nag moom yàggaay bi def na affaire la ndax maa ko dégg bañ ko rëddee ba jotaay ba njëkk am mu ne dama koo bëgg a tabax mag miskin yi ku am lu bari loo xam ne boo neexee léegi mu pare doo ci dugal sa loxo seet leen nag xanaa bu gannaaw gi jumaa jooja lépp lu relation baay meññ ci biti mi ngi ko tabaxee ci jumaa jooju ba mujj li nekkoon ci biir Medina ak biir Sénégal ak Gambie ak Mauritanie tas ba ñëpp xam ko muy dem ñuy ñëw eh, moom lay wax walladi ittasaa wa nafaa maa ngi ni kuy foye baat yi ittasaa wa nafaa pourtant ma loolu laa bëggoon wax mu mujj yaatu am jëriñ aussi am siwal yowm nam baaxe woon la baaxee tey itam dëkk ba dëkk la d'accord nit ñaa ngi toxu si mais itam daara yuy mokkaloo alxuraan la te bosam bi mu bi mu indi naar bi ahmadul rabbaani muy jàngal paa doomam yi rek ñun ñëpp ñoo ñoo ma fa jiitu uuf ah, muy jàngale terewul daara yaa ngi ci dëkk bi nit ñaa ngi mokkal rek te mokkal alxuraan bés bu ñàkkoon ci lislaam dootu baaxati moom nag mu amee chaire bi nga xam ne moom laa tuddee al kursiul mubaarak mooy jàngal ñi ci kaw mais ñi eggagul ci kaw ku ñëw mu nangu laa jàngal boole nag ci benn dërs ma fekkee ko ay yoon ñuy jàng risaala ak ñuy jàng xaliil ak ihmiraar maanaam ñaari ñaari buu bu buuy ñaari buut yi parce que loolu dafa xam ne il faut mu gaawantu defar nit ñi ak nag Medina di ay jotaayu waare ak jubal nit ñi orienté waare xam nga foog nga wax nit ñi yàlla nee na yonent nee na Aboubacar nee na Aboubacar lii la saaba yi niñ ñu dundee woon saalixiina yi ba buy wax na sama bay nangam parce que foog nit ñi nga utal leen ay royteef te du doon lépp dafay doon xam-xam dafay doon wax dëgg madina di dëkkab madinatul firaari ilallah yàlla ko wax moo ne fa firru ilallaahi daw leen wëqit jëm ca yàlla al firaaru ilallaahi xam nga bu ko yàlla santaane yow war nga seetlu ne ba bàyyi di laata fiir yi sax kuy daw xëy na am nga loo bëgg a jot wala loo bëgg a raw yépp la nag firaaru ilallaahi yaa ngi daw seytaane ak bakkan ak ñi naan waay toogal waay jëm ci allah bàyyi nag bàyyi man ñu ne ko luy luy daw jëm ci yàlla bii boobu mu ne mooy daw ci diine yàlla ji daw jëm ci sharia bi ba ba firi ko niñ ko firi ne waaye itam boo ko bëggee utal système mu ne mooy dawal jëm ci ku te ngeen bokk jamono ku mët te ngeen bokk jamono ku pare ci yar boppam ndaxte nit mënta joxe lu mu amut soo ko xasee gis nag mu ne ay condition am moom la du say condition yow ku lay faj doo ko wax nii nga may faje waaye loolu tax ñoo jóg tey eh, biir dëkkab Medina Medina di dëkkab taabudul ajnaas wal qabail léegi doo fi gis rek ay olof non non non xeet yaa ngi commencé limu waaye surtout nag olof ak mauritanien ci li nit war a gaaw wax ci relation baay mooy gannaaw ñi ko teel a xam ci Sénégal ak Gambie bi mu yëkkati liwaawul faydati muy mbiram diine ak tariqa tijaaniya ñi ko njëkk ne wax nga dëgg mooy ñi waroon nekk sang yañ topp ca Mauritanie xam nga loolu itam yàlla moo koy def ndax li ñu xamoon mooy affaire dañuy wax rek mais nit ñi amoon nañ ségrégation waaw ah mooy ñu ñuulee ñuulee shérif shérif waaye bi Baye waxee ne li yàlla li Cheikh Ahmed Tidiane diggee woon ci tariqa bi tuddee ko al fayda tijaaniya yàlla jox na ma ko am aw sans embâche fekk ma nga sol lam sol fekk ma ngay lekk laax fekk mais nee na lii am na ci ñi ko njëkk a dëggal ñoom la sangi Mauritanie yi ñoom Cheikh Xaaneek ñoom ñoom ñoom nga xam ne seen baay ak moom sax moom maamam moo demoon ba Cheikh moo yar ko ay at lijaasal ko tox ko xilaafa ne ko dellul Mauritanie te ne pat Mouhamadul Hafiz mm. Ashingiti taarix la ñuy wax mu ne ko mu ko demal rek bu la yàlla feeñalee nga door a feeñ parce que bàyyi jàngale na gannaaw gi ci benn lettre ne xubbu zuhuri qabla ibaanihi yamnau zuhur teel a bëgg a feeñ te jotagul dafay faf tere feeñ yàkkamtil ceeb bi rek ba ba gaaw koo yekk rek muy xayam xew kenn du ko lekk ñoom ñëpp ñu ñëw Medina lu may wax Medina Kossy waaw xam ne ni bàmmeel yu bëree nga Kossy ñu bëri wax nañ ne ci naar yi lekk gu manqué ak moo leen taxoon a xiiboon foofu amuñ lu mooy yàlla boobu mais nag ba mu tabaxee base bi base boobu nag moo indi relation yomb yi maa ngi ñëw damay waxu sax muy waare ya xew foofa su ma ñoom papa buñ lay nettali boo jógee ci waar ak bàyyi doo bëgg dara ci àddina lu may yàlla ak am jom ñuy daw rek jëm ci yàlla te booba mbir de boo xoolee dafa am lu xaw a soppi tuuti ci muadala bi ñi ñu màng ñëpp jëmee ci yàlla du góor ñi kese du mag ñi kese dafa am jigéen am jeune nga dem taarix ci taaw yonent bi nekk noonu la woon foofu may laajte comme relation la ñuy wax jamono jooju français yi ñoo colonisé Sénégal ñoo amee l'administration ak lépp est-ce que seen présence Sénégal gàllankoor na bàyyi wala encouragé na ko non buñ ko mënoon a gàllankoor gàllankoor mënoon gàllankoor gàllankoor ko parce que ku coloniser am réew lépp luy maye doole da leen koy xañ ndax nga mun faa yàgg waaye nag man de gis naa lenn bàyyi nee na ma yàlla tàggatal na ko daal en tout cas benn commandant de cercle ci Kaolack te boobu bàyyi nga kuusi commandant luwoo la tudd xam naa ne noble la woon sax kooku bàyyi nee na commandant bi day toog ba mu yàgg cag cag cag ci oto soosu ma amoon ba Kossy relation ngoog bàyyi mu ne suma ma foogee ne service a ko indi su toogee te waxul dara ma ne ko ah lan la woon nag mu ne ko déedéet damaa namm rek baati taalibe yi sikar damaa namm baat faddalu damaa namm marhaban bil imam سامحنا هذه اللغة التي نشرح بها أيوة dégg nga de mu ne tubaab bi commandant du cercle de Kaolack booba ne ko dee demande na ma rek kàddu yu taalibe yi sikar moo ko mayoon saam may sëñ Basiru la pareeg moom ndoorow jëmbat ko ay garab yu ne ci àddina taalibe moo fonk yooyu rek ba yëpp yàqu gannaaw bi moo tax moom utul ci ñoom la ñuy joxe ñoom itam yàq mënuñ koo yàqal li mu doon def parce que su fekkoo ne mën nañ koo yàqal kon du egg fi mu egg benn commandant daal laa gis ne moom jëm naa ko jëm naa gàllankoor baay ci mbiram reconnaissance école mais baay jaaree ko ca ko waaye dafa tabax ci biir këram ci côté bi fa rekk Haj Abdoulaye ñaari classe képp man ca laa mottalee alxuraan bunt yee monté guñ ko fenêtre yee monté guñ ko mu dend ak néegu ñax ak mbaar niñ daan jànge bàyyi bugg reconnaissance tubaab bi naan ko day tubaab bi ne ko est-ce que école bi ñu koy tabax am na autorisation bàyyi na ko loolu de xaw ma ko ndax man ci laa jànge <laughs> li fi bees daal mooy mool yi ñu tegaloo tubaab bi fontu bàyyi romb ko léegi nag ba buñ ne Cheikh Ibrahima ci Saloum ak ci Sénégal vraiment kenn du ko laaj teeti ñu ñaa ngi dem ak ñëw lépp di jàmm te boo xoolaatee ki tax yëngatu bi yépp am moom ban changement am ci dundam matériellement doo ko gis ba fii may wax ak yow léegi ba mu sànci woon Medina ñu tabax ko banko moo fa ne ba tey lim def yëpp soo ko def moo tax nit ñi xam ne kii ko sérieux te nag kay tabaxoon macha allah xëy mënoon na ko nag waaye defu ko te moo ko jublu waaw kum neex nga tabax booba nag la pour pour bàyyi génn Sénégal il a fallu que sénégalais yi xam ko fonk ko ñi ñuy taalibe yi di root di dem ñi bëgg lu baax di ay xaritam amul benn këri sëriñ bu bàyyi amatul relation bu yiw buñ mën a présenter yàlla amu fi loolu moom mën na ca fin bu la neexee léegi bàyyi nag xalaat sanc na jàngale la nit ñaa ngi ma de trente de de de ba ba ba ba trente mu ne dafay aji Makka déclenché nag mouvement boo xam ne ba léegi mouvement baa ngi continuer ndax aj googu xam naa ni aj gu nangu euh, moom ci la bokk bato la demee jël plumam ba muy tàggoo yaayam maam astu jànq mm-hmm. ba nim ñibbisi bindu ko téere mais daf ko def ay not mu ne parce que su ko rédigé dafay rëy mu ne waaye lu xew rek bind na ko ci sof lenn nangam nangam lay jar diggante sangam diggante sangam nangam ngay tey mu ne dafa ragal bu waxee ay prix ku nay tayal aji il se taille de prix <laughs> dégg sew sew yi waaw oh, léegi moo aji aj googu nag laay tënk ci lii aji na aj goo xam ne ndokk bi mu ko bindee ndaxte ajam gu mujj ñoo ko bokk li ma jàng ci ajam gu njëkk noonu la ajee ajam gu mujj maa ko wax nanguwul ñu defal ko dara direct te am na ci doo mun na toog sax ñu sànni ko demara mu mu mu mu def lu mu war a xam na ko déedéet benn yoon laa ko mos a si benn ajam du mujj gi sax booba minan booba arafaat daanaka amul lekk ñu fanaan minan dafa fanaan moo bu bërsët sa ëllëg sa oto yi dañoo yoon amul tusbaar la egg minan te as ndiggante su gàtt la ñu continuer dem sànni buux a def kii euh, maanaam def tawaaful ifaada ba war a dem Safa ak Marwa toog xiif na sonn na eh, xale bu am chance keroog Jibril Samb comme ci biir rek bàyyi la liggéey il a reconnu que bàyyi mii dafa xiif mu gaawantu daw rek jënd ay yu sew siwaan yow indi rek bàyyi dal di kii naan kii nanga noonu dal ne bërët xam nga lu mu wax mu ne seytaane def na lu nekk pour yàqal ma daw Safa Marwa tey waaye xap xam nga mënoon naa toog ma ba ba ba ca ngoon wala yooyu wala mu war dara ñu puus ko dér ma ngay waaxu ñu ngi dem bon aj googu nag ajam gu njëkk ga nag ci la wax lim def yépp lu jàng lu defee mbooleem jaamu yàlla yi aj ak orthodoxe ci biir loolu nag yàlla ubbi ko ci yenn wax relation relation yoo xam ne benn buuru Makka Abdul Aziz bàyyi ñoom Faysal booba daanaka légende la ci dëkku arab yi ndax mi ngi door a jël Saoudia recevoir na ko invité na ko ndax ki ko doon utal nit ñu baax dafa gis bàyyi rek na ko yow mi daal teg niru niru nga borom xam-xam bàyyi na ko incha allah mu invité ko jotaay ba def na fa lu ràññeeku waaw ndax benn relation fekk na mu am relation ak Ali Kutubi mi nga xam ne mës na nekk mufti Shafii ci Makka bokk ci famille yu mag yi ba mu gisee bàyyi rek mu eslu ci moom nekk taalibeem kenn yëgut géewu buur booba moom man fa buur bi wax njuumte kooku corrigé ko man taalibe bàyyi bi corrigé buur bi ndax buur bi dafa toog ba mu yàgg rek bàyyi ñu ko nettali mu ne euh, waaye tanim bi nit ñi dem di umra du miqa aïchatu rek moom temps tawaaf ba dafa gisoon ngànt moo tax mënta wër kaaba gi bi ñu waaj a dellu Medina mu ne yonent bi ñëpp ngi dem ak aji umra lu may man mu ne mu boole kook càmmiñam Muhammad ibnu Abi Bakri ñu dem ba bu ñu demee ñu ak ñu xarmalee fa ñëw loolu rek la te Aïchatu xam nga dafa foor ci yonent mu ne alikut bi ne koñ ne ko ne ko buur da ngay wax ci diine ci sa ci ci ci sa bànneexu bakkan <laughs> yaa ngi xanaa xamoo ne bés ba ko yonent waxee la nekk miiqa comme ni ñu xama ne moo leen miiqa yi ñu xamutoon nee na buur bi jóg rek jël jaasi ji wékkal ko alikut bi ne ko man jaasi ji rek laa am lii ma la wax jànguma ci yii laa ko déggee daa fa nekkoon ruus ba waaw taalibe baay bi ñu joxe fa parole waa ji tagg buur bi bay ñii xat keneen tagg buur bi bay ñii xat ñu jox baay parool mu ne man dey tagg ngeen buur bi waaye yàlla laa njëkk a tagg dem ci tawxiid ba ñuy kii mooy seen point faible xam nga yonent laa see teg moom mi nga xam ne kaaba gi ngeen di wax avant mu ñëw këru xërëm rek la woon moo ko laabal saaba mi laa teg ñoom ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne door a wax buur bi nag mu ne ki jóge woon Égypte te ñi ko wax te tagg buur bi ne buur bi damaa bëgg a waxaat parce que euh, borom xam-xamu Sénégal bi li mu wax ci yonent bi foog mu wax ci yonent bi <laughs> nga ne ko ah la rek relation yu bëri ubbeeku foofu ba ca gannaaw ëllëg sa mu ne ñu gis ko ci beneen jotaay buur bi xëcc ko Abdoul Aziz xëcc ko boo ne mu ne ko xadis ja nga waxoon keroog damaa bëggoon a xam wér naam déet may na ko ban hadis mu ne ko danga nga ne yonent nee na yàlla ku élif dara ci suma xeet wi bu leen yombalalee yal na nga ko yombalal waaye bu leen soxoree yal na nga ko soxore bàyyi na ko wér na lool mu ne ko man ko dafa tere nelaw booba tey bàyyi na ma xam ne boobu baax la hmm? waaw relation yooyu nag ba léegi dogut benn ci aj googu ci la xamanteeg sultaan bi nga xam ne kookoo ko invité Nigéria ba Nigéria gi ngeen di xool ci net bi léegi bopp 35 la déclenché dafa am sultaan boo xam ne buur la jàng na itam jàng na itam buur la jàng na itam après mu mébétoon a gis ku mel ni Baay mébétoon a aji mébétoon a nekk buur nee na bi ma nekkee buur doon samay baay yàlla may ma ma aji xëy na yàlla dina ma may itam ma gis njiit ci tariixa bi ba mu dajeeg baay werantewul wan ko ne yaakaar naa ne daal yow la ba ñu waxtaanee bàyyi na ko jógal mu jóg ñu dem ba fa ñuy siyaare boobu nit ñi bëriwuñ mu ànd ak ñeen fukki kilifa foofu boobu yi fi jafeegul nii léegi mu mu may ko wér mu beesalal ko ndax wér mu xaddam la tijaan ah, la woon eh, beesalal ku bëggoon ku amutoon wér te bëgg mu may la bàyyi na ceeg note de ba rex ba mu ne booba la sultaan boobu nekk bëkk néega mbaaj gi jeex relation boobu buur boo xam ne buy dox ci mbedd kënu gars yi dañaan rànkay dat yi man suuf suuf yarul moo daan xellil bàyyi ataaya di ko xellil muy jàpp bàyyi di ko wax muy jàpp muy jël bàyyi ànd ak moom ci aj gi yëpp def ci moom lam def ci moom bàyyi ne bis sàngam lañ tàggoo ca jëdda may ñibbi mu ne ma boo ñibbee ba fiix bugg naa nga gane si ma Nigéria maanaam lii ma mos bugg naa suma peuple mos ko alors ñu dem ñu dem bàyyi bëgg faa dem ah mais xaaral damay dem Fass relation Fass xam nañ ko maanaam Fassu baatin bàyyi ne xaaral damaa bëgg a damay dem Fass ba ñëw door a dem Nigéria mi ngi mel daal tukki mii lim daayoo jur foog ma ressourcé su këri kilifa gi mag a ca sa faat bi bàyyi ne dama bëgg a dem Fass rek quelques jours rek lettre ba egsi muy datu bés booba ma ngi ko naan sidna cheikh nee na ma wax la ne pommal <laughs> nee na yow mi elu mbóot mi naa la wax ne fommal ba jafe-jafe yi waaj a xew-xew waccee ko yàlla ndekete mu bindal ko ca suuf ne ko dafa mel ni guerre mënta ñàkk bàyyi toog ba guerre bi jeex mu bàyyi faas ba nag dem kanu ay fan yu néew la fa am léegi la wax jiyaatu waaye buur ba rek ak ñu tuuti la fa gis ay nusxa ci téeréem bi ñu naan kaashful albas la fa bàyyi discutu fa kenn mu ñi ñoo ko nettali gannaaw gi ba kilifa yi jot ci di ko ne waxee noonu bàyyi nee na ma xëy di ñibbi saani kaafanga mi bi téere ci visite boobu boobu nee na bi sëriñ bi xëyee di ñibbi bët sëppi na ci guddi ñu xëy dem suñ tool ma ne ko maala ma daal ma ne ko ji ngeen bàyyi ji ne xool nag mu ngi nii man mënatuma dem ànd ak gars yi nii parce que da ngay dem itam doo am loo wax parce que kenn amatul loo fa wax ngir ngir ngir rëj rëj loo ba mucc rek ngay jéem a def nag bokk Nigéria nag bi nga xam ne fi mu ne nii macha allah ci dëkk yi gën a mag la ci àddina man laaj naa ku nekkoon ministre d'état chargé de la police fédérale ministre de ku yiw koo xam ne police la de métier ba mu ñu amee yépp ci loxoom ma ne ko nooy décrire taalibe bàyyi ci Nigéria noo koy nattale mu ne xaw ma ko mais daal amul dëkk bu ndaw wala dëkk bu mag boo xam ne nekkuñ fa relation yooyu ci aj googu la aj googu du moom kenn gis na fa maanaam am na sëttu imam Shafii bu jàpp ci moom ci ay ak nag waa Soudan Misra xool Soudan Misra tey daanaka la fa am bàyyi am taal bi sax ku ñu ko doon wax tey du ko gëm yooyu yëpp nag mooy visite visitu aj ga ak diine ak tarixa waaye ba mu ñibbisee delluwaatul Kano Nigéria delluwaatu fa 37 ba 51 déedéet du ma wax 49 ba 51 51 rek ba muy aj aj ak ñaareelam la fa jaar yëpp bàyyi moo ko moo bind rexla ba bi nga jeex gis naa diw wax naa ko dem naa lii la ba mu booba nag nee na ba mu wàccee kënu waat na ci yàlla ne su nekkutoon ci xaalatu jeex ci Cheikh dina rus sax ba ba dee waaye nag wax ju bàyyi waxewu kon simple loolu ci arabam ya dafa ne xiina nazaltu samma qad dahaani maa lam yakun wallahi fi xusbaani waqad tayaqantu bi anna allaha yujri al-umuura kayfa maa yaraaha mu ne sirtu aqulu ayna da cheikhu alladi yaanu lahu riqaabu kulli jihbazi wa ayna barhaamu wa maa barhaamu xatta fanaw fi xubbihi wahaamu mu ne wallahi lawlaa annani faniitu bi cheikhi ahmada xayaan mittu li annani ana alxaqiiru aljaani wallahi maa tubtu wa inni jaani mu ñaanal leen ne aamalahum bi dannihim man satara suu a wa xusnan adhara xam nga boobu macha kenn mënu ko filmé nee na ba ma ne kanu ci deuxième fois boobu nee na lama ma jommal jommal na ma moom musta foog gis naa ko mën dama mujj naan moo moo kuy barxaam nag moom la yor de ma mag kuy barxaam wax luy barxaam sax ba ñëpp jeex ci moom sang yëpp ñëw di di kii mooy laa su ma jeexatoon ci seex su ma gisoon sama bopp rek keroog damay dee ngir kersa ndax moom mu ne amul solo te lii tax amul solo tuubu rëccuwu ko lu ma <laughs> mu ne waaye ki leen may ñu am ci moom njortu lu rafet yal na leen ki nga xam ne mu ne moo ndëbb sama wàññeeku woon leen mat yal na leen jëflanteeg ñoom ci seen jot mais foofu lu ne xew na ñi bëggul dara sax nga xam ne lu ma yundaandowaa yi am na ku ñëw ne ma mujj gi mujj gi mujj gi mujj gi kaay interprété ma ci ci chehu chehu mooy a cheikhu chehu mu ñëw ne ma wax mu ne waxal chehu ne ko ay nit moo ne mais ni koy wax man dama soxla alal man lu ma man moom de nee na la soxla ah, I want to be rich waa ji moo tax da ko damaa bëgg a rich li bàyyi am yëpp ci ma waay moom moom moo ko laaj loolu ah man de xawma lu xew mais bañ fa dellu siwaate waa yaa di summi di gaare oto beneen lu mel ni mel ni teyu ko ah, man la mu ñaan bàyyi boobu ñeme mu ko ñaan bàyyi hmm. <laughs> léegi ajam googu daje boobu ay daje ci ajo li tax nag ñu xam dara ci mboolem relation bi ay document la yum bind ak loxoom ak nag yum waxtaanee xam nga document moo wóor ajam gu njëkk def na ci téere rexlatul xijaaziyatul ula lañ ko tuddee en prose gannaaw gi mu ajaat bind beneen reex ak tuddee ko naylul mafaas bil awdi ila al xijaas ne la ca nettali ba mu demee Conakry njëkk njëkk njëkk maanaam yoonu kan woowu euh, la xew yëpp ci Guinée ak Soudan ak Sierra ci tukkeem mi bind na ko ci téere bu amul moroom ci woy ak nag may yu ko yàlla may ci tukki mooma nga xam ne kenn invité ko woon nee dafa jógoon rek di seet fi ñu baax ñi daan jaar bu dajee ku xelam seet la mu def ca lu baax euh, rexle boobu am na ñu ma ko firiloo ma firi ko ci ay CD ku ko mun a am am ko rexla yépp sax laa firil naa ko ci wolof am na ku ma ko firil ci arab ku ci mën a jot nañ ci jot yan yi ay rasaay la ay missive yan yi ay tontu yu mu yónnee la yenn yi ay jiwaan yu mu teggee yonent na dugalaale ci lu ne tukkim Chine miñ demoon da laamee bi mu teggee yonent bi daf ci dugalaale xabaar yi tukkim yëpp ak ay macha allah léegi relation yi commencé Sénégal dem Gambie dem Mauritanie taalibe yi la woon mu jigi sëriñ si dul taalibe sax bokk ci ba mujj gi chef d'état biñ commencé am ci Mauritanie gannaaw indépendance ñëpp am ak baay ak Médina ba léegi ay relation foofu la commencé dafa gudd relation yooyu nag à partir du Nigéria dem na Cameroun dem na Tchad dem na Soudan ñëw na fi gën a jege Niger Niger daanaka daanaka dëkku Tijaan la dëkku Baay la mais nag ñeneen a fa caat dañ wax ne daanaka sax ña fa nekkoon lu dul tijaan sax daanaka fi mu ne daanaka amatul te ñu ëpp ci taalibe yi tijaan yi taalibe yi bàyyi lañ man maa ci xam dara Nations Unies daf ma fa ebal ci benn mission jaare ko ci FINEAB taalibe ak zaawe nangu ma man tam ma toxal discours yi ma waroon def yépp ci dugal ko biir zaawe ba moo tax affaire population ñoom ñoo ci gën a avancé parce que dama ko jaaree ci biir tarix bi awma dëkk yu ma maanaam boo commencé Afrique occidentale ak Afrique central ba ca Afrique oriental foofu yëpp bàyyi u taalubeem u taalube ci jàmm relation yooyu dafa commencé ci diine ba egg ci gorowante ba egg ci même politique am na ñu jëriñoo bàyyi ba falu ba egg ci paix kanu nigeria du Nord am na at moo xam ne su bàyyi yëngatuwul woon gaaw a fay safara sa mu tàkk ndax buur boobu may wax doomam ba mu ko wuutoo ci kanu moo gën a renforcer ci ñu dem ba politique xaw koo fiire ndax ku ne bàyyi tudd ko ku ne tiyaar ya tudd ko am ñu koy fexeel ba folli ko bi bàyyi yégée ne peuple baa ngi bëmb benn xasida rek la leen yónnee waliyukum awliyaa allahi is makaru makran huwa allahu mawlal xalqi fastabiru yéen awliyaullahi yi yàllaa leen méngoo ku leen di fexeel itam muñ leen ku leen provoqué bu leen tontu def leen nii lii ma war a orienté leen ne leen daal su ngeen mënut a ñàkk réagir daal am ngeen ngànnaay guddi mooy yaa rabbi yaa rabbana moo fetal moo tane sax fetal ma ne fetal sax a ko ngànnaay guddi bu baaxul moo tax yëpp a xew yëpp mujj na xew alhamdulilah jàmm rek a xew ko alors biir Afrique bàyyi terewul biir Afrique bi Afrique ak araab yi ubbeeku moom fekkee naa ko doxloo na ma ci sax ca ca bañ koy bañ koy bañ koy hëndësa bàyyi jógee na fii ak invitation officielle bu jógee ci Jamal Abdou Nasser boo xam ne su ma bañu doon mois mois mois dinaa wax ne maanaam barke baay bi ci man la def ci jël lii ba ma indi invitation ba verbal ñu confirmer ko bàyyi door a dem maa ngi ko toppatoo Conakry ci congrès afro asiatique ma ne bàyyi dégg naa ci rajo yi congrès bu am Conakry defe naa ku fa demoon da nga fa mën a liggéey dara déglu yow jeune bi bu baax mun a tekk ba mu yàgg mu ne mu bu ko defee rek ñeme naa war gaynde parce que du tëb rek mu ngi ne waaw dana tekk ba mu yàgg xaw fu mu demoon mooy labas rek am ku ko jox dara rek ci xaay bu jox ma ko ne ma passé ko ma dem gis naa ñi ñi jóge Égypte Anwar Sadat du sax ministre dañu waxtaane ba mu wax ko kuy bàyyi ak indépendance ji Cheikh Touré am te ñun ñëpp danañ ci dem kum neex kum naqari te day soppi àddina Cheikh Ibrahima nee na français yi dañ dem France ñun alamul arabi islam yi ñooy suñuy mbokk tàll nañ leen loxo euh, lu yàkkamti ma ne ko bourse ak subvention pour centre bu mag ba muy tabax ak ak ñu wax yëpp jënd ma yow wax ko bàyyi moo ne ma alaaj Ablaay àndal ak moom ngeen dem man ne ko boole ci diw sëñ Babale ñu def def tournée ba yëpp ñu confirmé ku ñëw bàyyi départ nag dem Ghana invitation officielle ñu lalal ko tapis rouge diplomate yi saxal fi dem Kaayra ñu lalal ko tapis rouge jiiteloo ko jaamiul azhar te dañ koo bett jiiteloo ko masjid Omar Makram jiitaloo ko Masjidu Mouhamad Tawfiq ñeenti juma yu tegaloo bàyyi mooy xatib ci Misra te mbir ma xam nga teraangay tondi buy jiite gu njëkk nekkoon catastrophe kay du baax mais dafa jiite Ghazali di ko commenté ba mel ni conférence di wax ne ku teew ci jumaa jii tey sa xel dañ na salafu saalih moo tax bu ngeen déggee salaf yi bu mu leen jaaxal ñun mm-hmm. salaf bi xam mooy baax jub am jàmm waaw mu ne fii mu ne man de jaaxle na julli ñu ni ñuy tardé te ku te ñu mel ni ñii nekk ci suñ biir ci ñeenti jumaa am na aalim bu ñëw ci jumaa ji ci Mouhamad Tawfiq bàyyi xutba ba pare waa ji jóg di di commenté xutba bàyyi ji ba ba ñoom sànni awar ñoo ñëpp dañ doon jooy xam kii kay relation ngeen wax relation yooyu jur na ay bourse ñu xale yi jàngee du doomi bàyyi rek du waa Mérina rek du waa Sénégal rek daanaka fu ne ay milliers ba léegi indi na ay subvention mais bariwul maa koy wax secret yu bari dañ foog ne arab yi jóor nañ bay xaalis non non misaal gi ci gënoon a mag booba lim jox baay yépp mutul vingt mille euh, livres waaye nag baay demu foon pour xaalis defam na fa yu bëri gannaaw gi nag luñ fa sos rek mu jëm ci aalamul islaamil arabi boole nañ ko ca lu ñuy créé académie de recherche islamique bàyyi dañ invité ñoo ànd ba mu demee bàyyi discours d'usage ba ba ñuy ubbi àdduna yépp ñëw fa ba Chine bàyyi bàyyi bàyyi ko def ñett a nekkoon ci podium ba moom la ak wakilu asara ak ministre bi am na benn bés bàyyi corriger débat yi ba biñ bi ñu tasee ki jógee woon Tripoli Liban ñoo noo mu ne bàyyi buggoon nañoo soppi fii tey politique mais yaa ko delloo ci sunna tey bu yàlla doon buggal nit ñi yow rekk ciy mucc day foofu loolu tuuti na moom mi ngi wax ndànk rek bu waree ree ree hmm? benn sax gars yi rocc bàyyi yóbbu ko télévision te man yëguma ko de bàyyi xumb ma xool gisuma baay rek man tam ma bàyyi bàyyi ma demandé parole ma jàpp benn waaye kii <laughs> ko ba eh, ba kenn ma ay eh, di ko laaj tontu la tontu de dafa daw bàyyi bàyyi masa bàyyi nañ nee na su xale yi baree rek mu puus ma su mag ñi nekkee rek mu toog alhamdulilah loolu mu dem fa jóge fa ya fa xew yëpp dafa bari après moo dem Suuriya noonu lañ ko teeroo booba union la diggante ñaari réew yi mu dem mu dem Iraq fu new bu nañ ko fa dellu na Iraq ay ndawam dellu nañ fa Iraq googa mais nag barke baay ba ñoo ngi ko denc ba gannaaw baay man mii xam nga sax olof mun naa wax man sii quoi pour xeet man sii ngeen di man lañ invité waaye daf ko gis minan ci benn colloque ministre bi mu foog ne man je suis indépendant quoi mu invité ma daal mu ne pour ma gis seen liggéey ma dem tabaarkalla ñuy waxtaan mu ne ma lan nga soxla loo bëgg lan mooy say problème ma ne ko ma ne ko aucun non boo buggee yegg ci lu sori da ngay bàyyi yu ndaw yi mu waaw luñ loo xam ne nag Sénégal bu nga def mu neex la ma ne ko ah jullit ñi nga ma ne ko ah awalan ma ne ko premièrement am na fu ma bokk am na fu ma dëkk waaye du ma tëb rek tudd ko Sénégal jullit ñëpp soxla ndimbal ndax dañu mel ni ay taam ala ma addi bi li am ma ko waaye nag su ma dëkk moom fa ma dëkk su ma markas foofu fa ma jógee moom nii la nii la jumaa nga ko joo xam ne ku bëgg yàlla yàlla ngi ci ku bëgg àddina àddina ngi ci ba ma ko présenté jumaa ji nag mu bett ma ne ma waa ñaataa ca manqué xaw ma ko ndax yónniwuñ ma pour jumaa ji kenn gungewu ma bi may dem dama demoon noonu moom intellectuel bu ñu invité moo ma sama xel daj dara rek ndax jumaa ji yàgg naa cee am teraa ngay liggéey ci fu ne bàyyi yónnee ma ko ma wax rek dara mu ne ah, loolu de mënuma ko décider waaye nag dinaa ko wax président ma ne ko jeex na yaa ko fi nekkal suba laa ñibbi ma départ avec deux kilos de date irakienne du may laata romb Paris sax léegi mu jeex ma toog rek chèque ba ne bëpp huit cent mille dollars pour jumaa ji dama jooju ñu fexe nag rajo bi lay lu ko yàlla fay ma tëral nag mu d'accord ci ñu fexe ba dugal ko ci jumaa ji ba soixante mille am dugaale ci xam nga bàyyi ba mu fa dem bàyyi jox ko mooy di dix mille kii. dix mille doon dinaar te bàyyi moom la jëndee woon école rue Rafenem xool école bi li mu jëriñu mu jëg relation yooyu defar na ci ay diggante yoo xam ne aw ma droit ci wax ci. liban googu liñ tubaabe tubaabe bàyyi dafa dañ ko fonk dem na fa xam na. premier ministre bu fa nekkoon yaa fii Saoudia moom këram la mu jigéen bi ñuy créé rabitatu alami islami daf ñu yebal alaaj Abdoulaye man ak Habib Niang ne man ne moom aj nañ mi ngi ñibbi ndax ñim àndal jógee Nigéria charter-plane la foog ñu demandoo waaye toog leen ci bind xaaj ah, Abdoulaye bind ab lettre ci turu Baye ñu nekk ci congrès ba bañ paree ñu defar bureau ba bàyyi troisième ci list bi te kenn ka mufti réew ma la kenn mënu ko ñàkk a jiital kenn ka ab ministre bu ñëw la bàyyi ca tam ah, xëy jógee fa lu mu fa defarul amul yu bëri bëri bëri foofu yi bàyyi def foofu ci rabita bi su fa nekkut ak bu fa nekkee ki koy yaman la demul waaye demoon na sax ba di ko préparé Idi Amin sax bàyyi ngi ko provoqué pour dem fa mu jig muy wone ay tànk bu kii bàyyi toog Iran oo nañ ko ci temps Shah bàyyi wax ma ci biir ne waaw déedéet man de muy nangam nangam tax na du ma dem foofu ba ko chinois yi évité ba ñuy dem Chine bi bi dafa waroon na def escale Téhéran temps Shah bàyyi na ma déedéet fii du fi def si kan ma ne ko bàyyi kaay kaay man ma proposé la alternance na ma ne ko yaa ma yónnee woon ci weer yi passé Pakistan ma ne ko gis nga man mii rek dañ ma doon xëccoo nañ jaarale bii bi foofu mun a baax ñu départ jaar Paris dem Bruxelles dem London dem Qahira dem Beyrouth dem Karachi am fa ñeenti fan àdduna bi yëpp soxla ko juróomi fan xaw ma fukki invitation ak ñaar suba yor-yor guddi tëjee ko conférence de presse boo xam ne dafa doon jubale Misra ak Saoudia comme chef d'état waaw waaw dem bañ fa jógee ñu naaw jëm Hong Kong jëm jëm Bangkok bàyyi observateur la bi ñuy tiimee Bangkok mu ne ma xoolal xool tool yi ceeb yi ceebu am <laughs> ñu dem ñu dem Hong Kong dem Chine yooyu yëpp nag moom lay junj ci xasida bu jamaata wa jóodan fekk mi ngi taggaale yonent bi waaw yooyu gudd ci jaar fu nekk bàyyi dem na Congo gi waaw relation yim am nag ak Maroc ak buuru Maroc Hassan II alors relation jëriñ na ñëpp parce que bañ fa demee ci la bàyyi ubbi buntu première bourse officielle waxuma kuy waxuma waxuma ñu def mu xaamara de euh, làqar ci dem ba jàng yu no état bi joxe bourse ak kilifa diine c'est première la bàyyi état dara ci xaalis bu dimbalee kilifa diine c'est une première pour congrès bi ñu defoon pour une euh, association des universités islamiques bàyyi dañ ko ci invité mu liggéey ci lu bari ba am kenn koo xam ne moom gisul bu baax bi ñuy defar bureau bi comité exécutif bi ñu pare waa ji bëggoon na ne bàyyi yorewul université pourquoi muy bokk ci bureau bi <laughs> de Alal Fassi le leader marocain nga xam ne daal yéemu ko moo ko ne bindal ko yow maa la wax université mu ne ko mu ne ko université maa ko alal basi wallahi laa alors moom la ñu tuddee léegi ligue des universités islamiques mais bu njëkk association des universités islamiques dañ ko créé bàyyi bokk na ca ñaan na ca liggéey na ca Algérie Toulouse Libye ku ci nekk dañ ko invité mu dem fa te am na fa yu baax yu mu fa def bokkut ak xam-xam bi bokkut ak ak borom lettre yi ñu koy bind mu jógee lii bi boobu boo ko jàngee tey da ngay bu lii bi xasaafi bi boo xasaafi bi mu fay dem bu njëkk yi xasaafi mi ngi commencé kii waaye soo ne ko jamono ab nas dee na yaay suma bàyyi léegi sama dafa amoon benn waaye bu nekk affaire islam koo xam ne yitteem yeggul ci bàyyi quoi relation yii duul ne rek ay julit ak i arab déedéet Elizabeth Queen Elizabeth bu Angleterre am na relation ak bàyyi ci ci bindante baayam sax waa Nigéria tariqa awraad azkar jazbu suluk abondamment mais terewul bi ñuy dem Angleterre pour négocier datu seen indépendance bato biñ jaar bi biñ war dafa jaar Banjul ñu ñaan bàyyi mu dajeeg ñoom Banjul ñaanal leen ngir ñu am na jaax ñoom ñaanal leen ñu dem relation yooyu euh, général de Gaulle ci la ci loo xam ne ku ma ko waxul moom doo ko xam parce que la yàgg na bi de Gaulle bi Hitler occupé France de Gaulle décidé na moom loolu du ko nangu dem Angleterre diggante boobu ñëw na fi Gàmbi gi gise naag bàyyi gise naag bàyyi te de ñaan loo na bàyyi kon ñaan nga nangu la ndax de Gaulle dellu si na 58 ñu dem fa nag Paris gannaaw gi 10 ans ba ñu def bàyyi xaju bëtam ba pare ànd ak notre ambassadeur ji Momar Gueye le chevronné pour gis de Gaulle Ousmane jarbaatu ji ñu dem Élysée mais Jacques Foccart moo bare yoon la ndax dañ dem rek le prévoir mu ne way général euh, maanaam calendrier lay yooyu calendrier nangam nangam bàyyi na Ousmane Kébé xam na jim ambassadeur day mu ne Ousmane Kébé ne ko gis de Gaulle tax moo na ñëw Paris de dama doon faju wér naa ma doon ñëw di ko nuyu boo ko gisee nga ne ko bu baax la su fekkee ne fàttewul Ibrahima Niass ca Kaolack ci senegaal moo fi ñëwoon di faju ba wér doon fi jaar pour nuyu ko su ko fàttee ne ko ka xam ne ba nga dawee njaam nga <laughs> tey toppatoo sa mbir ba ñëw gaam bi ka nga dajee loon te mu dina dimbale ba am na sax taalibeem yuñ ci rey te sax ña daan boole sax am na <laughs> am na ñu ci décoré bu yàggul moo fi jaaroon ne bëre jóg bi ay tubaab bi xonq coy comme nii waaw buñ ci commencé woon du ko baare ñu ñibbi alors nag yàllaa ko defal kon ubbeeku relation yi réew mi la ngir diine mais mujj na màgg ba nekk benn universalité boo xam ne lam tàmbalee mooy lislaam moo universel mu yar ko préparer ko yàlla jagleel ko mu jig itam activité ak tawfiixam moo ko yóbbu ci universalité du ñuy vivre euh, luñ sos boole ko ca te fu mu dem am fa am fa njëriñ am na yoo xam ne ci jeunes yi war naa leen wax ne am na congrès bu mag woon ci Makka ci Ligue cinq mondiale bañ koy préparé la commission générale bàyyi moo ko présider ba ñu duggee ci congrès ba moo nekk fii di joxe parole di commenter xam nga loolu lañ ko defee comme kilifa la ah non commenter ak nag brio ndaxte benn waaye bi foog ne moo fa dàq arab palestine yi bu dëkk kii la liban loo wax mu tari dara kii bi projet rapport bi bi ñu koy liir am ci baat boo xam ne waa ji daf ko liir kooku di jaay xam arab ne ko non boo loolu effacé ko du arab bàyyi mi président ne ko bul ko effacé arabe la xam conflit am na man mi toog te xam bàyyi jàquma man sax xamoon naa ne baat bi arabe la waaye doo ko ah loolu fu ko waxee bàyyi ne ko boo demee ci xamuus danga ci fekk tiilata bi ngay wax ne amul tiilata ak tawaala masque ak xeet ak tuwaala masque lonk ak tiwaala masque suuf mooy firi muddata kaza ay durant kaza loolu yëpp bàyyi ngi nànk-nànk waaye nag ah loolu mi ngi ci xamus waaye nag nag yow man maa lay wax ne mi ngi ci xamus nga di ma ko laajaat <laughs> xam nga fu ma xamee ne tiitoon na un après ñu toog maag waa ji dend ak moom ak ay syrien ay professeur bàyyi xamam fu ngeen rek jëm ca Kaaba ga nii waa yi ne kim dandal gis nga kii ñun ñëpp moo ñu raw mais ku raglu la <laughs> fay lu ko raglu woon donc pour te dire que dugal na ci dara yomb na waaye nga fees fa am fa njëriñ rëccuwuñ ko loolu mooy yi bàyyi yi te yi may wax yëpp bokk nag bàyyi mbóot bokk nag bàyyi loolu nag laa laa ne bàyyi ngi doon séentu ndax liñ ko yaree du lu xaj foofu ak bi yëpp lu mun a xaj kon nag léegi maa ngi résumé ne relation yi neen am na relation humaine yu mu am ak ñu bëree bëree bëri te rafet na lool am na relation dëkkandoo dëkkandoo baay lu ci ñaaw ci kooka la te li ma ci gisee mënu ma ko nettali relation familiale fonk na mbokk lool mos naa dégg mu tagg baay xalifa Ñas te nekkuñu woon ci biir néeg nee na xalifa nee naa ko ñun sa rakk yi war nañ laa gërëm ndax dañ laa fekk nga bugg xam-xam ñu bugg ko nga bëgg mbaax ñu bugg ko lu ñu la fekkoon rek dañuy foog ne loolu la relation religieuse yoo xam ne mooy kuy jullit rek intéresse nga bàyyi ci Sénégal moo tax mbiram sectarisme xamu ko jullit laa itam doo jullit rek fekk tooñoo nee na taxagul mu am ak yow problème déggoo waayam xam moom wax na sax ràbb na lu waaye sax nee na lii nazratun ila ibni aadama yastaxilu maaha albuxd maa ngi am xool bu may xool doomu aadama loo koy xool rek doo ko mun a bañ autrement di bañu ma kenn mais nag nit mun naa bañ boppam mooy bam ne maa ngi sant yàlla musuma maa togg ku ñàkk fayda ma xam maam ku ma xool fële ne ma ne ko waa mais nag ku ñàkk fayda mun naa togg moom tu <laughs> as compris yow kooku du yow moom yow la relation xam-xam lim fekkee yëpp di dajee xam-xam relation xam-xam laa ko tuddee lim am yëpp ci ay taalube borom xam-xam relation laa ko tuddee lim toppatoo yëpp ci ko war a jàngi relation xam-xam laa ko tuddee ak li mu bind téere joxe ñu delloo ko ak ay tagg téere bi mu bind ci asaka gerte Serigne Bachirou Mbacke moo ko njëkk jàng yàgg na lool ci moom may foog sa réer na ñu door sa cosaan relation littéraire yu kowe mooy li baay bind ci ay xasida yuñ mun a yóbbu suuqu ukaasa ak xasida yoo xam ne tagg nañ ko ko yëpp boo ko boole woon diwaanul arab lay doon kuñ jàng arab sax boo ci yemee da nga raw relation administrative bi nag xam nga ku mu sa élif dara ci Sénégal rek am nga baay rapport commencé ci chef de canton yi gis naa yoo xam ne faru daf leen a fa ma gis lu ko bàyyi jox xaw yi gis nañ koom mu dégg kii ko mais waaja ji faru. Hmm? sëriñ waa gi dinañ fal nit dinañ fal nit tam rëcc ko ngir kàccoor ak waaja hmm. waaw yi may wax yëpp ay cas laay junj de mais du ma awma droit ci dund te tudd seen relation préfet yeeg sous préfet yeeg gouverneur yeeg ñëpp ba ci nag chefu senegal yi wax dëgg yàlla am na yu bëree bëri bëri yu jaax seen diggante mun naa cee wax am na relation politique yoo xam ne daf ci impliqué am na parti yu bàyyi doon dëgëral mais ak xool bu jëm nii ñi foog ne fii la jëm waaw bàyyi daf daan wax ne sañuma Léopold maanaam am Léopold bi xëccoog am Muhammad maanaam Lamine Gueye may ànd ak Léopold bàyyi Muhammad moom noonu la ko déggee kii di jullit kii jullit la est-ce que euh, finalement defe naa ñoom ba ñu juboo bàyyeeku ko mais bàyyi wàcc na ci ça bàyyi wàcc na am na ñu réeroo toon ci Sénégal ci Sénégal ngir ngir politique ci Kaolack sax mais loolu na xale yi xam ne jeexoon na ndax mujj nañ bokk parti jaraaf ak Baye Niass ñoo doon dëgëral PSS bu suñu mag Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum dafa créer parti bàyyi seetul ne am naa doom yu war a créer parti wala ay cadre sañ naa sax man créer parti dafa ne déet nañ ko jàppale mu nekk chef d'état du Sénégal bàyyi ma buggoon koo waxaale pour ñu xam ne nit ku mag xol ba day weex nii doom ju réussir ak sa doom la su fekkoon ne sàccuñu élection yi atam Cheikh Tidiane Sy mooy nekk le président de la République du Sénégal deuxième président te ni kon bàyyi ci ñu koy fal la boobu bëri am na commandant bu bu bu ñàkk kersa ne bàyyi ne bàyyi yéen euh, yéen am carte yéen a gagné waaye waaye man sax ku ma neex yaay gagné waxantuma France moo <laughs> man maa ci xam sax dama doon bi ay trac boobu xam naa ci la relation économique direct ak indirect bàyyi lépp luy tax nit am dara lu tax mu gore mun a nekk jullit daf koy encourage moo tax waxam yépp liggéey leen bay leen am leen jom nga daan wax yépp li ma mujj wax mu teg cee tuuti mu dem daarul baqaay nee na ma gouvernement bi signalé nañ ma fonds yoo xam ne mun nañ ko lebal ñu ne ci njaboot gi euh, bor yu yàgg maanaam à long terme day olofal yépp mu ne wax naa El Hadj Abdoulaye na def société te na la na la ci boole coopérative agricole yi bi ñu xewee atam ba Sénégal lu waaj a tekoof te tubaab bi yàqu ko mais Baye non seulement daf ko doon soutenir mais amoon na coopérative foofu yaa mi yëng dëkk moo doon siège bi coopérative ba mu pertee lu kenn yëgul ma jàngal la ko tey bor ba yëpp bàyyi laqati ba fay ko au nom de la coopérative te lekku ci dërëm taalo bi itam nag dajale jëndal ko kër gi mu nekk foofu donc coppe mooy fi daal dégg nga te nag waxtu wu ne mi ngi xalaat mu ngi xalaat luy tax nit ñi am doole am dara boo demee Nigéria kaar bu mag no oto bu mag daf lay romb Bays compagnie Bays compagnie maanaam Bay ma compagnie bi ñu tuddee Bay es boobu di boole ñaari baat yi dégg nga ak ak nag ñoo xam ne macha allah te yemul foofu sax cinquante maanaam cinquante neuf ci la bàyyi njëkk xalaat am rajo privé dox na ko dafa sottiwul am na fi récépissé pour génne journal buy am ñetti langue tuddee ko le musulman africain yàlla def moo jógee fii euh, dundul mais nag defe naa ne yoonu information ak rajo yooyu n'est pas bouclé ñaanal leen fayda ak ak almadina ak yeneen yàlla baax na alors am na ay responsabilité yoo xam ne relation yi daf ko jur munu ci dara ba indi la ko ay participation juñu naa ci tuuti ay présence yu gudd xaju fi ak nag baay mi ngeen xam mooy relation di relation daayira bu mag mooy lislaam buggul dara bëtt ko ndax ne boo téye ci des yëpp yàqu bi ci nekk mooy tasawuf sunni buggul dara bëtt ko ndax su bëttee rek tarix yëpp yàqu ak nag daayiratu ya wax na ne wax na ne ca kosi jeune wax na ne wa inni euh, mun euh, wax na sa taati qariban قريبا فيضة الختم هيئوا بتفريغ أغيار فتحظى بموضعه kenn xamul li muy wax balaa yàgg rek fayda bi Cheikh dige woon ne dana mas a amee ci taalibe yi ci jamono ju naqari léegi mu egsi fexe leen ba raxas xol yi ba bu ñëwee am place waaye nag terewul jeune buy tagg Cheikh ba yàgg nga naan matlabi an akuna xutban faridan lil baraya la gayra hada achimu loolu firi na yu su ma càkku devant du raw fii du ci damaa bëgg a nekk xutbul baraya li may séentu pour mu ñëw loolu rek la la xawalu xutbu yàlla may na ko lool waaw parce que na ma nee ci rexlaam bi seen bateau bi départ na 37 Tunis ñu war a dem Port Saïd géej gi yëngatu géej gi dal lool laa bëgg a dal lool mu ne benn waaye bu mu xamut ñëw ba ci mu ne ko yow ku dund ku dugg ak yow bato du xam géej géej gaa ngi mel ni dafa dee pourquoi mu ne bàyyi la moom musul bàyyi en ko nag euh, te euh, fayda boobu moom la al faydaanu saaqi wal faydatu al mawuda faydaan mooy bu ndox mi bëbb rek toog mën naa yaatu bëgg naan mais fayda nag dafa doon spécifique comme boo ne woon baqaru nag yëpp nga wax soo ne baqaratu nag day yaa ngi doon wax benn nag du ñu naa lu garaaw na ko ma ne wa baqiya cheikhu dalika al abda al allaamata al aabida al qaanita am yëpp ci relation yoo xam ne la ko lal xam nañ ko pourtant il demeurait jaamu yàlla bi am na xam-xam lool jaamukat yàlla lool la bu xóot mais dëddu àddina ma ne buñ buggoon wax nag ci waxtaanu dëddu àddinaam dina soxla beneen jotaay euh, wala sax yeneen jotaay léegi nag ci benn benn onwaan bu moo tuddee ila rafiqil ala muusiyan ma ne ba mu defee yim def yëpp jëriñ yim jëriñ yépp jaar fi mu jaar yépp euh, quand même wuy ji na woote boromam ba muy dénkaane dafa ne uusikum bi taqwallahi fi sirri wal jahri maa ngi leen di dénk ragal yàlla ci lu nëbboog lu feeñ wa bil wirdi tijaani waxul tariqa sax de ndax mbootam tariqa bi mooy wirdo wi wa bil wirdi tijaani ak maa leen dénk wirdu tijaani audu billah bismillah fatihatul kitab astaghfirullah allahuma salli la ilaha illallah subhana rabbika wirdo waa ngoog lépp yàlla ko santaane maa ngi leen ko dégg mu ne fa innahu naka moom wirdo wi maa ngi lay wax phrase bi bàyyi mujj bind ci àddina mooy lii zone lil ahyaay wal amwaay trésor la pour ñuy dund trésor la fii day un point un trait wa salaamaaleykum di di modèle ci ñun